السلام عليكم ورحمة الله بكي نجلن نجلن زيار لن بالو حق نيان برم سبحانه وتعالى مبالا نججل تيدن يام آية بويدن لكي القرآن ويوح قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سورة الشورى الآية 28 aya bis bi borom bi subhanahu wa taala da ci wax nee na moom mooy ki wàcce taw ginnaaw ba ñu naagoo ci am ndox kon moom mooy ki méngoo mbiru jaam yi te mooy kiyeyoo cant aya bi mu ngi ci suuratu shura ci tolloog ñaar fukk ak juróom ñetteelu numéro ci saar bi mooy 28 aya bu ko defee yàlla def ñu bëgg xamal boppam rek subhaanahu wa taala ñu ngi ci jamono yi nawet ku xool seetlu tuuti diggante deux mille dix neuf deux mille dix huit deux mille dix sept ak année yi ko jiitu ndox mi néewoon na lool néewoon na lool ba ñu bari demoon ba jàpp sax nawet bu normal dootu fi am loolu moom xewoon na mooy yàlla nag. dem ba tey deux mille vingt deux mille vingt et un wala deux mille vingt et un deux mille vingt deux mu indiwaat ndox mu bari tabaarakallah moom nag mu ñuy xamal boppam xëy na ñun dañoo fàtte naagu ga ñu naagu woon ca jamono jooja yaakaar na ndox mi dootul bari ak indi yu mu ko indiwaat mu ñuy xamal boppam ne ñu moom ci boppam mooy wàcc taw ginnaaw ba ñu naagoo ne duñ ko am. waaye bu koy wàcce taw ba bu day ñëw tasaare yërmande am moo tax taw yërmande yàlla la mission la taw dafa am mission bu muy dox yërmande yàlla la ci xeet wi ci dund wi ci nature bi ci jur gi ci nekkin wi ci tabax yi ñi def lépp yërmande la ci ak ci suuf si mooy dundal suuf si mooy dundal nit ci lépp tabarakallah xéewal la ci moo ñuy fàttali lool nag ñu bàyyi ci xel bu baax naagu woon nañ ay jamono indi na kon li ñu war a def mooy sant moo tax mu ne ñu moom mooy ki méngoo mbiru mooy bu dee taw bu nee sëñ diw ñaan na mu taw sëñ diw moomul ndox mi de dafa tàllal loxoom ñaan kon mbir taw boobu kan moo ko yor ci loxo yàlla la ne ak leneen lu dul taw kon moom mooy mu ngi xam ne mooy ki yeeyoo cant it mooy sëñ jiw bu ñaanee mu taw sëñ jiw bu cant ga duñ ko delloo yàlla moom mi nga xam ne dañ koo ñaan mu ndox mi bo wàccee nañ ko sant ci wàcce gém ko wàcc waaye buñ ca xarab du ñàkk mu ñëw def ay ay dégâts dégâts ya muy def loola yoonu yàlla nekku ci de ñun ñoo dëkk foo xamante ni ndox mi muy wàccee moom bi mu bindee àdduna bi am na place yoo xam ni daf ko defoon muy yoonu ndox ñun ñoo war a saytu place yooyu ba buñ fa dëkk wala bu ñuy defar ay tali ñu xool rigol ya fa mu jaar ba ndox mi bu dee place la xam ni yàlla def ko programme pour ndox ma jaar fa rigol yi def fa ay rigol ba ndox mi bu ñëwee mu jaar ci rigol yooyu dem ca géej kenn du la toggal ceeb ba noppi jox la kuddu di la seexal di la saqamal di la lekkal ta nekk waaw ndox mi nag yàlla wàcce na ko wàcce na yërmande gi muy xéewal ñun nag ñooy seet nu ñuy def ba taataan ko budul loolu bu ñu ci loroo rek ñun ñoo lor suñu bopp c'est parce que dañoo dem ci foo xamante ni fa mu ko wàcce moom bi mu tracé àdduna bi foofu daf ko jaar bàyyi woon pour muy yoonam wala ñu ñëw fatt ko yoon bi mu waroon jaar mu jaar feneen jaar foofa loolu mooy sabab bi bu ko defee kon lépp xéwal la incha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax ci nawet bi yàlla yàlla def ci barke jaay nabil mustafa sabi xul qawli hada wa astaghfirullah adima li wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh